go chers internet yu Ket Bougoul TV dal jàmm dal jàmm ci li gën a fës ci ëtteeg lekaay ñu commencé ko élection ne fa lool yéenekaay ne ñaar lool gannaaw coowam lu rëy li nekkoon ci digganteem ak Ousmane Sonko yéenekaay bi dañoo xamal di Doudou Ka woo Abdoulaye Baldé woo ñoom la Macky Sall miy zappe waaye nag boo moytul ay fipp dana ci am ndaxte Doudou Ka ak Ablaye Baldé bii ñu def benn couple dem ci élection locale yii te li ni mel Ablaye Baldé ci boppam dëggal na ko yéenekaay bi dañu xabal ni maire bi futul Ablaye Baldé bii def ba tax na gedd na ba raxasu ba set wecc ci Benno Bokk Yaakaar yéenekaay bi sa wet ga ñu ne tali musub mba bakku mba am ci diwaanu Kaolack marché mi dina bàyyi bi nga def nii scandale te faaw ñu siiwal la bàyyi di xam ci biir yéenekaay bi de président de la république ci boppam la interpellé mu jël ay mesures ci lii wala boog ñun dinañ ko fajal suñu bopp ndaxte Modou Ndiaye Rahma mi lekk xaalisu suufu jàmbur yi dong la dëkk fii ci dëkk bi jël alal gi nag di ko mayee di ko fooyee te lii nag dootuñ ko seetaanati réew bi ko tujjee ubbi xët bu yaatu jagleel ko coog bàyyi bi nga xamante alal gu takku la xëccoo yi tasaaroo yëpp dara du ci dëgg la tribune yéenekaay mu ubbi xët bi yaatu jagle ko coog des médias bi yéenekaay bi ne gis nga nguuru Sénégal gi gannaaw ba ñu yónnee huissier mu ànd ak ay gendarme yu takku dugg ca biir des médias xayma matériel yu fa nekk yëpp fas yéene koo jaay ni démb nag dafa mel ne média bii dañoo rakkaaju ñoom ñëpp dem soutenir ji des médias presse sénégalaise bi ba ci médias yi nekk ci bitim réew diaspora sénégalaise bi Afrique ba Occident diggante groupe des médias ak nguurug Sénégal gi ngir solution mën am ci ciow li yene kay bi sa wet ga delluwaat ci walu politique te xamal ne maire bu Ziguinchor mom Abdoulaye Baldé bu yaakaaroon na mom la Macky Sall mi di dëggal Macky da koo mujjee njuy lii moo waral mu maire bu furtu daal di bayyi benn bokku yaakaar alaxte yene kay mom dalal maître Moussa Diop mu yak lu melni xamé député Macky Sall yi nga xamné ñom lañuy la walu trafic de passeport diplomatique maître Moussa Diop di xamlé ci biir yene kay bi ne gis nga mais gouvernement bu Sénégal bi ci bopam ñoy protéger député yi bu ñu bayyi woon justice def liggéeyam ba légui si ñom ñepp nga ci biir kasso bi surtout à delluwaat ci walu politique yene kay bi def taxaw seetlu ci candidature marie Teuw Niane mom mi fi nekkoon ministre de l'enseignement supérieur bedd na Macky Sall fas dem ci coalition bopam yene kay bi ñu xamal ne Mary Teuw ñandé deugul na candidature ba nopi défier Macky Sall xamal ko carrément ne ko soxlawuma ci yow dara dana dem ci élection locale yi té dana gagné critique yene kay moom def taxaw ci investiture yi yene kay bi ñu xamal dé benn bokk yaakaar nag boo moytul fii lay jaaree en tout cas lay xeeñ ci Ziguinchor moom neexul dara ndax Macky Sall dafa dumooy Doudou Ka Abdoulaye Baldé fi tol ni partisan Doudou kay yi dañoo mer ba ci ñàkkataan gi nga xamante def nañ ko sen leader bi di Doudou Ka yene kay bi di xamle le Ziguinchor fi mu toll nii moo nga jax benn bokk yaakaar boo moytul duñu ànd dem ci élection locale yi fi ci Dakar moom dina ko dóor dóor yi metti ci élection yi gannaaw ba daf maa war tànn keneen ku dul man yéenekaay bi dellusiwaat ci diggante Macky Sall ak Balde ne gars yi dañoo xamul rek Macky dafa proposé Balde bi waaye Abdoulaye Balde bëgg ko moom la mu tëg bëtam moo di mairie bu Ziguinchor bi lan moo tax Abdoulaye Balde bi

quotidien yéene kaay ne li kay yemul rek jógee soor ndaxte boo demee tam ci diwaanu Saint-Louis coow investiture yi mu ngi mel ne ci biir Yewwi de moom xëccoo gu métti moo nekk ci diggante benn bokk yaakaar ak waa parti socialiste bu ñu moytuwul socialiste yi dinañ du mooy benn bokk yaakaar Sud Quotidien moom def taxaw seetlu ci Macky tànneef gi mu def ci diwaanu Ziguinchor jël Benoît Sambou ak Seydou Sané jiital leen ci élection xamle lii nag mooy defet dëgg Macky ba mu zappee Ablaye Baldé mooy daanu ba xalangu ci diwaanu Ziguinchor Les Échos yéen kay di ko dëggal benn bokk ko yaakaar même bu fekkee ne ñoom Ousmane Sonko laay liggéeyal sax l'essentiel Macky Sall dana daanu ba xalangu ndaxte man ku ma trahir da nga ko gis na ma defoon ci ne fii ne lépp bi Macky def moo ko waral waaye Ablaye Baldé Macky Sall daf ko proposé woon benn poste ci biir gouvernement bi mu lànk ba xalangu ne mairie bu Ziguinchor bii la soxla Macky nag pour wan ko ne ko man maay sa chef li moo tax mu tànn Benoît Sambou zappe Ablaye Baldé bii waaye Ablaye Baldé dana ko wan boppam xamal na ko ne ko élection yi yow Macky boo gagné Ziguinchor Ziguinchor ne ma kuri xaaj élection yi neex na ba noppi bi yemoon fii sax dafay gën a neex a baax na ba suba ak jàmm incha allah sabablu leen Nous a xam ana fan lañuy jaayee produit yu kenn bëggul bu Cheikh Seydi El Moustapha si ñuy yellu di leen wax adresse baa ngi noonu bu ngeen ñëwee fii ci résidence am bu bees bi nekk ci poste Thiaroye ci arrêt table Tivaouane suñu ay numéro 77 602 15 63 76 378 17 ñi nga xamante ni dañoo am cas yu urgent ba mënuñoo xaar mën nañoo woote ci numéro bi di 77 030 48 40 ñu ko 77 030 48 40 bu ngeen wootee ci yili numéro di ngeen jot ndaw yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul mustapha Sy wan leen ana nan ngeen di def ba mëna a agsi ci bile bërëb bés yi nga xamanteni mom la kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul mustapha Sy di consulter al-arba al-khamis gaaw dibéer bi nekk bésu sàkk pexe bu delloo ci rendez-vous privé yi ci di kenn bëggul bu Cheikh sidi Mouhamadul Moustapha Sy daal dina leen ni sàkkal ñaari bés muy altini ak àllarba bu ñetti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu kin bëggul bu Cheikh sidi Mouhamadul Moustapha Sy gaaw ci tawat yi gaaw ci poche yi